خلق الإنسان من علق بسم الله الرحمن الرحيم ولن با إن شاء الله علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا yaru sëriñ amul kenn koo xam ne ci ñun maîtriser na ko ba mën koo xam kon fu ma baalu nag yow nga jàng alquran parce que

تنته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقل إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ من ألف شهر Bismillahirrahmanirrahim. Nekk ci sa tur ak ci sa sant di jéggalu ci retard bi nga xam ne am nañ ko 6 su commencé 9 heures am retard bu mag ñu programme Bos. Itu yang yang komisaris kepala di Sisi Lekarane ini gak gak sama. Warna sana ini dia yang mudah. Ada yang alhamdulillah moo fas yéene def troisième partie bi nañ ko waxtaan bi nga xam ne dañuy mën mu parce que dèjà ñu ñëw ba pare parce que xam ngeen ne ñun jullit am nañu problème bu ñuy liggéey fii ci réew ñu nekk bëri na si ñun nag nga xam ne calendrier boobu daanaka xamul si dara daanaka weer yi nga xam ne moo nekk nga doon jullit nga doon islam commencé à partir de sujudul di dalam boleh kamu sekarang. Jadi hidup bulan Ramadan, Muharram, akhir bulan bulan Rabiul Bila ada kamu sekarang. Ini yang bukan milik kami. Kailah muka ini dan syariat menjadi. Mana surat ini? Kau berikan aneh. Pasal kita ini wujud sesuatu yang best.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

كان يقال احمد تجاني المنكر نصره الله واياه ومن اجل ذلك جادت قريحتي نحو هذا الشيخ بابيات اقول فيها مردينا قد فقت للحوز بمن ظهر فيك سجاياه محمودا بلا وهم أبي وفخر القوم كرما يمسي ويصبح للقرآن والعلم مجالس الذكر والإخلاص مذهبه لله دره Yeah. And dina baax meral ci jamono noonu la kembali jangan lupa Jokowi. Histori ini gembiraan menjelang menuju gembiraan di kota yang sangat Subhanahu wa ta'ala kiw rek daal di doon sa baay bu sa baay tànn yoon baax yow nga tànn yoon kon lu mu yàgg yàgg tamit yàlla moom la fa nga sa rek fa lay kon sa di julli tey julli woo kooku taxul yow nga dem aljana bu ñu nax suñu bopp kon subhanahu wa taala nag ci bésu tamxarit bii nag ci la musal yonent yàlla ndoon ci la gaalam nga teer yàlla ne ko boo bëggee teer a gi da nga bismillah bi mu waxee bismillah ci la gi bés boobu ba tey. 你又不知道。